di wax yow mi nga xam ne yaa ngi seetaan te abonné go ci chaîne bi boo xoolee ci suuf da nga gis fi bind s'abonné boo fa bësee rek abonné nga am na ñetti cloche euh, yu mu lay indil boo bësee cloche bi nga bës bi ci kaw nga xam ne vidéo buñ dugalati rek nga jot ko bul fàttee aimé vidéo bi tamit ak suñ vidéo yi ngay gisaat yëpp euh, ak ñu ko partagé di leen yëgal aussi ubbi nañ chaîne boo xam spécial firi gént kese lay def par thème lañ koy def Euh, bépp thème boo soxla ci wàllu gént rek incha allah euh, dana fa am commencé nañ fa dugal ay vidéo bu ngeen ñu ko mënee mënee aboneel partageel ñu ko incha allah di leen jaajëfal bu baax ci jàpp ngeen jàpp ci liggéey bi. kii neen dafa gént dem ci école am bi mu doon jàngee léegi nag euh, bu njëkk nee na mu gis foofu ñu ne ko daal ñu fi jàngale ñu ci bëri nekkatuñ fi nee na mu mel ni jàngalekat bu bees bu ñëw ci école ba am ku koy guider. ne ko fii mooy sa classe waaye nag duggul ci biir dafa mel gis na am ñu nekk ci biir léegi nag kooku continuer di ko defal ay présentation euh, ci loolu euh, mu gis benn classe boo xam ma nga tilim lol mu ngi naan ci xelam fii de élèves yi bari faa dugg il faut ñu nettoyé ko muy laaj loolu la muy firi sa école bi mu doon jàngee kooku mën na firi euh, avancement ak réussite boo xam ne ko ci xam sori na wala soriwul Euh, mun na firi aussi nag dellu ginnaaw mun na firi dellu ginnaaw euh, euh, niki noonu tamit mun na firi liggéey bu bees boo xam ne danga nga ko am balaa yàgg wala bu fekkee loolu lijjanti la yàlla sotal ko yooyu yëpp mun na nekk ci sa gént gi ñaareel bi nee na dafa gént jabaram am doom léegi nag mu war faa dem jaar ci yaayam yaayam di ko tegtal di ko jox ay yu war a gëllax ni ko ay ndox yooyu noonu yu ci wàllu xëy na ñaan nee na après nag mu dem bi domji demee gis doom ji nee na ji dafa xees te moom dafa ñuul muy sikk sàkk ba xam doom ji jur wala juru ko domji doom ji ma nga toog daal mel ni kuy lekk muy laaj loolu lu muy firi euh, gént sa jabar am dom ngay sikk sàkk ci moom kooku fiiraange la ak xel ñaar booy am ci moom maanaam kóolute gën ko war a wóolu daal des manque de confiance am ci moom moo waral nga gént lu ni mel ak fiiraange Euh, sa yaay di la jox nag ay tegtal mooy soxla nga ay ñaanam war nga koo jox dara mu yokk ñaan lay ñaanal wala boog mu wutal la ay muslaay yoo xam ne daal war na la ko wutal moom la la gént gi di tegtal ki neen dafa gént nekk ci toilette di def li ñuy tuddee istimna mooy masturbation nee na mosu koo xalaat nag waaye mu gént di ko def su meeku ba set nekk ci douche ma ngay ragal sax am ku ko gis naan fenêtre bi tëddiwul ak est-ce que kenn gisuma yooyu noonu euh, ci gént gi nee na daal loolu jaaxal ko lool euh, gént di def masturbation baax na nee na sobe bi yëpp mi ngi tax foofu rawatina boo gisee maniyu bi euh, maniyu ci gént day firi xaalis ak alal day gént di def masturbation mooy coono boo xam ne da nga ko sonn waaye da nga ci jëlee alal waaw dañ ci jëlee alal coono sax mën naa bañ a demee noonu waaye alal juy ñëw daal dana ko firi niki noonu tamit bu fekkee ku tukki la gëjës gis soxnaam namm ko yooyu mën na euh, faral di tekki muy gént gént yu ni mel maanaam euh, sonn boo xam ne aji gént ji sonn na ko ci nammu soxnaam walla yu mel noonu keneen dafa gént nekk ci wetu géej gi nee na ma nga am ay dàll yu bees mi ngi ko sol nag mel ni koo xam ne day yéeg Euh, ci kaw ab montagne mel ni kuy entraîné xam na euh, géej de bu fekkee da ngaa nekk ci wetam bu nekk euh, ci situation bu normal yënguwul deful dara kooku bu dee ci gént baax na xéewal lay firi ak barke nga gént di def sport it baax na kooku santé lay firi ak wér-gi-yaram gént di yéeg ci montagne kooku dana firi avancement jëm kanam ak réussite yéeg fu kawee ci gént baax na bu fekkee wàccaatoo wala daanuwoo keneen dafa gént gis eh, koo xam ne moom daf koy labat kooku nag moom avant mu koy labat am na ku ko ci njëkkoon waaye mu gis ki ko ci njëkkoon ci gént ñu nekkandoo ci benn place ñu ànd ñoom ñaar mu for benn lancette nee na ñu ànd mel ni waa ji da koy tegtal këram kooku day firi maanaam eh, eh, fiir goo xam ne moom faram bu jiitu bi fiir na ko seen diggante wala ay pexe yum cay jéem ndax lañ ci gént moom diggante bu yàqu dana koy firi ni ki noonu tamit mu lay tegtal këram mooy koo xam ne daal bëgg naa duggante ak yow ngir xam nu lay yàqale mën na firi lu ni mel ni noonu tamit mën na firi buñ ko yaatalee mën na firi noonu boo xam ne bëgg na laa dugg ngir yàqal la ndax lañ set bii nga xam ne moom nga gis ci gént gi moo waral lu ni mel nee dafa gént euh, dem ci këram fu mu njëkkoon dëkk nekk ci toilette ba waaye ba mu nekkee ci toilette ba mu ngi taq ay ginnaaw kër muy laaj loolu lu muy firi ay ginnaaw kër ci gént nag moom danay firi euh, xaalis day firi alal alal ju bari lay firi nu mu gën rek alal ji gën bari bëri ginnaaw kër ci gént day firi xaalis kooku mu taq la baax na euh, kii neen dafa gént euh, mbokkam magam bu góor ñëw di tàggu yaayam ne ko dama bëgg dem Touba nee yaayam ne ko dem ba pare dem di ko nee na nag bi mu koy dóor mu ñëw di ko di ko aaye naan ko dóor ma man moo gën nga di ko dóor yaay ji ba mu ba di ko waaj a dóor ma ngay jooy moom it muy jooy comme jooyu liir moom ci ñuy waaj a dóor muy laaj loolu lu muy firi sa yaay gént mu lay dóor baax muy dóor sa mag baax na ca moom ka ñuy dóor day firi njëriñ boo xam ne dana ko gërmane waajur dana ko firi dana firi barke ak neexaayu dund boo xam ne dana ko am mooy moom sa mag jooju gént muy tàggoo ngir tukki dëkk bu mu mën di doon rawatina dëkk boo xam ne yaakaar nañ fa yiw euh, euh, kooku xeewal la yiw la boo xam ne dana wàcc ci sa mag jooju euh, dóor boobu nga bëggoon mu dóor la rek mooy yittewoo goo xam ne yittewoo nga ko ay ñaanam moom sa way wayjur nga xam ne war ngaa fexe daal ba am ay ñaanam loolu dina la dimbale bu baax mooy li naan ko dóor ma te mujjeewu la dóor muy jooy ndax jooy ci gént day firi tamit bànneex boo xam ne da ko dund yow muy jooy wala kay jooy tamit jooy ci gént baax na ki neen dafa gént euh, di xeex ak wujjam nee na wujjam door ko jaasi xeex ak sa wujj ci gént kooku day firi ay jafe-jafe yoo xam ne am nga ko ak sa borom kër wala da ko am ak sa borom kër euh, ñu door la jaasi ci gént nag moom baax na day firi sécurité ak kaaraange ngànnaay ci gént loolu lay firi ki neen dafa gént dem ci marché boo xam ne moom fa lay liggéeyee nee na nag mu daal di gis ngooñ mu bëri ngooñ mi mi ngi jaxasoo ak euh, gerte waaw mu gis ngooñ bu bari boo xam ne mi ngi jaxasoo ak gerte ah ci loolu mi ngi gis benn xaritam euh, bëgg koo may xarit na ko noo garaawul am na ci loolu rek mu gis ngelaw li di upp ngooñ mi ngooñ mi di dem waaw léegi muy laaj loolu la ñu fi ngooñ ak gerte baax na alal la ju bari nga gént ngelaw di ko upp muy dem mooy alal joo xam ne da ko ñàkk dana génn sa loxo dana firi lu ni mel euh, ndax lan li muy firi may googu nga may sa xarit bi te mu gànt mooy alal joo xam ne ña ngi ca war a sedd doo leen ca sédd euh, ña ngi ca war a sedd doo leen ca sédd waaye da ngay ñoo xam ne soxlawuñ ko nga leen koy jox ba alal ji dana mujj jeex kooku sa gént kon loolu lay firi ki nan dafa gént euh, kii ay agresseur yitte woo jël téléphone nee na ci gént gi mu tudd benn kilifa gu mag a mag gu nekk ci réew mi macha allah ko am barke nee ba mu tuddee tur bi rek téléphone bi mujjeewuñ ko jël mu mujj rëcc muy laaj loolu lu muy firi ah, téléphone ñu bëgg jël sa yëf ci gént kooku mooy euh, euh, dena firi euh, maanaam loo xam ne naroon nga ko ñàkk te doo ko ñàkk doo ko ñàkk mën na am ci barke sëriñ boobu la wala ci barke ay ñaan yooy def di ko di ko def ci ci barkeem ak ci darajaam ndax ñaan ci barke sëriñ wala ci daraja kooku baax na l'islam reconnaître na ko bu baax euh, niki noonu am na ñu koy contre waaye li gën a wér mooy baax na euh, kooku loolu lay tekki kon bu ko defee lii lañu waajaloon tey ci firi gént euh, di leen wax ne mën ngeen continuer di envoyer seen vocal ci 77 943 77 41 77 943 77 41 ñu tontu leen incha allah numéro boobu nag vocal rek lañ ci envoyé mais kenn du ci woote moo tax léeg la ngeen di woote duñ leen mën a jël parce que daf ñuy fekk ci ay yitte euh, te ñuy woote ñëpp macha allah day xaw a takku buñ leen di jël yaakaar naa jot gi duñu ko duñu ko may kon euh, di leen jox dig daje ci beneen numéro émission firi gént di wax ne bu leen fàttee euh, bës bés cloche de notification bi nikki noonu tamit bul fàttee bés bouton j'aime bi Euh, partagel ñu vidéo bi doonte sax ci Facebook rek nga koy euh, partagé kooku danañu dimbale bu baax wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu